asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum suñu mbokk internet bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax ne nag ba tey ci info star ak info réew mi di kontaan ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ba tax na tey ñu ñëw fii ci HLM seet si ki nga xamante ne ndaanaan la doomu Dut Ndiaye Coumba Rose suñu papa jooju noonu yàlla na suuf sedd ci kawam ñu bàyyi ko wax mu présenté wax ñu moom mooy kan biram Ndiaye nuyu naa. waaw Pël lay nuyu. lu ma ne sax pël bu ñu nee pël dañu naan pël bi kon day gàtt pël bu rafet wuy nga sa tur maa ngi lay nuyu di la jaar bu baax a baax. ñu ñëw fekk fi sa bari tuwaar fa kàlla ndax ku ne xam na ne buñ nee sabar ne père Doudou Ndiaye Coumba suñu papa jooju nga xamante ne monument la ci dëkk bi euh, ñu bëgg xam euh, sabar yi naka nga ci euh, duggee ba xam da nga juddu fekk sa papa di tëgg mu imposer leen sabar yi wala da ngeen cee dugg ax dugg bi nga xamante ne da ngeen cee gis muy tëgg mu neex leen ba ngeen dugg ci. waaw d'abord pël bu rafet maa ngi nuyu Sénégal di nuyu ñëpp déjà maa ngi tudd biram Ndiaye Rose bu Alaaji du Ndiaye Coumba di doomu Ajatou Kiné Lam suma ma nee Kinaraam du du Kinaraam bi way ak sofi Ndiaye sama sœur mais dama judu deug la fek ay sabar ke du Ndiaye Kumaros mais du luñ ma jangal dama walé teggum sabar na yaakaar naa ku du Ndiaye Ros di sa wajur war nga meuna teug tëgg ma juddou fek ci kër gi sabar di deg ba yalla def mo meun lima meun tay ci sabar waaye du luñ ma jangal dama wara teug nak du du Ndiaye Kumaros moy sama wajur moo ma teug ñu gisoon ne taxawaayam rafet na doon na fi ki nga xamante ne monument la tey jii nii ñu gis ne da dafa amoon na affinité ak tëkkati sabar yi ay ku ci mel ni ñoom mbay gi fay ak di lante fu ne ñuy xool te ba xam ci tànk yooyu mu nekkoon ba xam yow yaa ngi ci tànk yooyu. tànk yooyu man maa ngi ci bu baax waa kër Weeseng fay samay xarit la ñu mbay gi fay di sama grand frère di sama xarit ji fay ñu jibi jóob fay aji màgge njaay ñu ñëpp ma bëgg. riche baay Baye ñax Baye Demba dam fay dem parce que diggante du Njaay Rose ak wee cinq fay la woon ñu ànd ñoom ñaar ànd bu rafet ci àdduna àndandoo dem ci dem bu rafet kon ñun njaboot gi bu ñu àndul yàqu nañ te ñun vraiment ñu ngi ànd ànd bu rafet boo ñëwee kër du Njaay Rose njabootu wee cinq fay mi ngi fii sëy boo demee kër wee cinq fay njaboot du Njaay Rose mi ngi fay say kon nga xam ne ñunu nen la te lépp benn la famille bi tey jii nii indépendance yi mu doon tëgg ba xam ba tey jii nii ñu ngi kunne di ko jox uh, yéen doomam yi ngeen koy tëgg programme yi doon yi mu doon def ba international ba xam ba tey yéen a ci voilà. waaw lu jëm si 4 uh, avril bi moom njabootu du Ndiaye Rose ñu ngi koy tenir ba léegi di ko téye di fexe ba heure bu ñëwee ñu bañ a wane ni du Ndiaye Rose nekku fi heure bu ñëwee njabootu du Ndiaye Rose yëpp taaw bi ak ñëpp ba ci ki gën a ndaw muy Lamine Ndiaye ñëpp taxaw. bañ suñu papa feeñ wane ni ni nekku fi dañuy taxaw ba majorité bi rafet ren man ak xale yi ñoo fi nekkoon maasaloon drapeau Sénégal bi di def 4 euh, avril bi ak xale yi surtout du Ndiaye Coumba Rossi mais lu jëm ci tournée nag international yi mi ngi continuer ba léegi mais ku ne xam na crise mondiale bi am tax na léegi ba tubaab yi mënatuñoo yóbbu léegi nombre bi nga xam ni moo nekk sabar na sabar nombre am ndawul kon boo xalaatee billet d'avion yeeg hôtel yeeg ak euh, fay beeg lekk géeg naan gi da ngay préféré ñi nekk bitim réew nga jël leen mais du te par ñaar par ñett ci weer wi dinañ ko génn ñu ngi génn ba léegi ñu ngi voyagé groupe baa ngi génn ba léegi parce que lu du njaay Rose liggéey la teg ko fi mais nag xëy na à 100 pour cent na mu daan defee na mu daan demee mën naa ne wàññeeku na parce que crise la quoi ak tubaab yi ñuy liggéey dañ ñu koy wax ne ma vraiment dañ leen di laaj lu bari mais koo ci wax ne ko nombre bi nangam la rek mu xaw a daw res hôtel beeg lekk geeg ak fay bi mais dina tutee weer wu jot ñu génn si ñaari yoon ba ñetti yoon mi ngi am ba léegi. ñu bëgg a xam yow taawam nga wala lan la. non man moom duma taawam du Ndiaye Rose taawam cuuna Ndiaye la tudd boo xëy na mm, maa si gën a xaw naa si xaw nekk mag tuuti mais am naa tamit ay rak mais duma taaw du Ndiaye Coumba Rose. mais léegi damay gis ne giwél yi ba xamante tubaar fakal ay ñoom waa Kër Sañ-Sañ ñoom daam seen yéen tëkkatu yëpp yéen a xamante. mais est-ce que def ngeen association bi nga xamantene day tax ngeen gëna euh, retrouver wu di dem lanté comme sa papa nim ko doon défé loolu nak amul parce que temps yi passé maa doon waxtaan ak ay géwél né ñun dañu wara tok ñun géwél yi waxtaan suñu biir parce que ñun dañu yor lo xam ne je pense que ñun je pense que ñun xamuñu valeur am mooy ñun Sénégal dañ fi am cër xam nga géwél kenn gënu ko ñun lu baax lu ne ñokay wax xew mo dem bu fa géwél nekkul du neex. mais pour man dese nañu jox cër bu baax fi Sénégal. ci naka. ci lu bari ci lu bari bo démé ci xew bu ñu né ñu ngi yobbu añi ñu ne ana géwél nañ ñëw yóbbu añi bu ñu bu nit ñi ñëwee ñu né woo leen géwél ñu tëgg sax sabar gi bu añi joté ñu añ ba paré door jox géwél yi bu boisson joté dañuy naan ba paré bàyyi géwél yi bu ñu toogee ci réception bi ñu né jakarlo la ñuy teug jakarlo gel bi tok ay mbokam tok ñepp tok bu ñi servi ñewé dañuy servi ñëpp romb géwal yi te pourtant suba ba léegi bi xew bi neexee ak lu baax liñ fi wax ak liñ fi waxante suñu biir yëpp géwal la waaye bu dee dese ba joxee lekk dañuy romb te booy xool lekk gu baax rek ngéwal la fekk baax moo tax loolu war nañ ko xoolaat bu baax delloowaat géwal cëram parce que ñun dañu bokk ci société bi nag kenn mënta dem sans ñun yaa ngi koy gis ci làmb ji yaa ngi koy gis ci tànn biir yaa ngi koy gis fu ne boo ñëwoon léegi ne tànn biir cent mille francs ñu dafa cher dem jël léegi jàkkaarloo koo xam ne ñaari nit la ba ñetti nit fay ko du jeex lamb ji ñaata la ñuy fay nit ñi mbëri ay quatre-vingt et quelques millions bi cinquante mille nga koy fay te cinquante millions su pare balaa mu koy jot sax dana daw ba dee ko ñun war nañu mën a delloo suñu cër nag lamb ji ñoo fay njëkk deux heures moom fay fekk maa midi ñuy sàjji di tëggal di tuusal mbëri yëpp te mu ñu weesu cinquante mille francs te balaa ñu koy fay ñu daw ba dee kon nanu xoolaat loolu tamit kon jox leen géwél yi seen cër ak seen gëdd ah, seen ak ak seen yelleef parce que bu xew neexee géwél yi la kon ba tax na bu ngeen di servi dee leen njëkk a jox géwél yi tamit kon nga noonu nga ko bëggee ñu def dara gënul neex tey ni nga mel ak man ni di sama jigéen ma daje yow si xew mais boo nee tël damay tee sabari jiin ne ah sama jigéen ñëw na man li ne si poset bépp laa lay jox pël bu rafet a ngi noonu yàqoo réew mi si liggéey bu rafet wax loolu baax barki dem Ndiaye laa daje yow kër Biram Ndiaye nga yëkkati ñaar fukki jonni junni jox ma say naw la naan ay ah, suñu kon suñu doom jee ngi def lu baax mais kon kon ñun kan moo na gën a mais kon war nañoo mën a delloo lu ñu moom nañ delloo lu ñu moom man ci loolu lay xeex géwél nañu am fulla xam ne li ñu yor valeur la di toog xaar ñu leen di woo bàyyi baas bu ñu gis yoonu sabar dem buñ la woowee buñ la woowul man Biram Ndiaye foo ma gis may tëgg dañ ma woo du ma dem fuñ ma woo nag ku ma toroxal lay bañ géwél day am fulla diiñ te man bokk naa si ñoon di du njaay ros ñun moo nu yaree noonu ñu ay géwal yoo xam duñu wër di ñaan duñu wër di gàddu ay sabab di wut ay baas déedéet foo nu woo ni ñëw nga fay ñu te dañ leexu leer bu añuy jotee ñay njëkk a lekk ca la ñuy bokk fa boisson amee ña naan dañuy naan bu nu paree nga fay ñu ñu dem loolu lañ du njaay ros yaree léegi yow sa mbokk tëkkatu sabar yi ban ban conseil nga leen di jox pour que yéen ñëpp ngeen booloo nekk benn moo gën ku nekk tey Papa Ndiaye toog ne euh, ber ay sabaram ke mbay jee mbay gee fay ber ay sabaram daam seen ber ay sabaram léegi lan nga gisee loolu ak naka ngeen war a mun a def comme li ma la ni ma la ko laajee sànq rek. mais loolu pël bu rafet war na mën a nekk c'est kër gu nekk ak sa famille la parce que tey lay gis ni sabar ki sant fay am na ñu koy woowee ki sant njaay am na ñu koy woowee ki sant juub am na ñu koy woowee kon ñëw bokk doon benn mais li rafet rek mooy. ñu fexe ba ku si lu mu am rek nga yaatal ko ba sa mbokk nawle géwal yëg si parce que koo xam du jaay roos xam ni daan tëgg ak cinquante batteur ak 100 batteur mais amu ko si njaboot amu ko ci famille mais daan woo waa kër Mbaye fay ne leen soxla naa 15 personnes waa kër ma Cheikh ma Ndiaye soxla naa 15 ba Lama Mbunda Mbaas soxla naa 15 personnes Abdou Karim Gueye soxla naa 15 personnes ñu dajale ko noonu ba mu mat 100 batteur ma 50 batteur ñu and en famille bu ñu ñëw du ñu xam ku du njaay jur wara ko ma cheikh jur wara ko laama muna mbass jur dañ nan rek wa kër du njaay rose tor ko njabot gi la tuuse fune kon ñun génération bu ndaw bi nañ koy def lu ñu am nañu wo biram njaay biram njaay lu mu am nay wote ñu bokku nday ta xam ne sabar bi ben langue rek lay wax amul benen langue bu muy wax lolu bent ñu ñëpp koy waxando léegi yow ci yeen projet nga nek jamono ji jamono ñi daal projet gi mo nek dal moy man birum njaay fexé ba du kumbaros wayam baña fay ak taxaw taxaw du njaay kumbaros newuma ma may du njaay kumbaros parce que am suñu taw ak fami du njaay ros ñepp ngi japp ken bayiwul mais man dama taxaw en personne bañ ñu faté du njaay kumbaros xol tank yamu taxawé won ma jëm ko taxawé spectacle yi ma daan jouer maa ngi koy jouer ci hôtel yi di ko ci prestation yi ngi may woo teeru yeeg réunion yi lu am rek du Ndiaye Rose daan fa dem maa ngi koy def di sol déguisement am di jouer parce que li muy def mën naa ko na doomu du Ndiaye Rose la am droit def loolu kon man instant yi ci projet yooyu laa nekk rawatina nag at mu jot muy atu deseem bu ñëwee damay wàcc ay kaamil togg samay añ def tàkkusaanu Serigne Babacar Sy nag moom Serigne Babacar Sy la gëm ba jënd kër Tiwaawan bu loolu jeexee dama fas yéene am date boo xam ni muy la 5 janvier ma koy rendre hommage du Ndiaye Koumbaros nag sëgam Bob Marley mi dëkk ca marle moo am datam boo xam bu jotee ñu di ko feete muy neex loolu rawatina nag ku mel ni Alaaji du Ndiaye Koumbaros loola waral la 5 janvier may rendre hommage du Ndiaye Koumbaros ak ñaari doom yoo xam dañoo génn àdduna muy Ami Thiam Ndiaye Rose ak Lamine njaay Rose instant yii nii sama projet ci loolu nekk ak tàllal loxo réew mi xam ni ku namu du Ndiaye Rose boo woowee Birame Ndiaye di ko gis si moom. Nak jege won nako, ko xamna ci mom lu bari. biram Ndiaye ñu bëgg xam naka nga gisé suñu gouvernement bi tay ji ni lan nga ci gis tay bo doon jox conseil wala nga doon joxe message lan ngay wax. man na gouvernement bi amuma dara lu mën wax lu man pour man ñu ngi liggéey man encourager ak ñaan yalla jappalé leen dëgeural leen parce que man gisuma benn erreur bu pour man buñu def nak président Macky Sall man pour man bimu mu ba légui cër bu mu wara a jox gi Doudou Ndiaye ku mboros jox na ko. ci dundam ci deem nekku fi du njaaroos mais lépp lu cëram du njaaroos am ci moom heure bi jotee dina ko yónnee ñu teg ko ci loxoy njaboot du njaay kombaros ku mel ni Bamba Fall di meeru Médina ku ne gis na du njaay dafa bokkoon ci moom mu defoon ko conseil bii du njaay roos génnee àdduna dafa dem fii en face RTS de place du njaay kombaros ku mel ni Khalifa Sall sam dafa nekkoon ci cabine dafa liggéey defoon ko conseil culturel mu yoroon léppam lu muy organisé si lu jëm ci affaire aar ci loxo du Njaay Kumbaros la ko tegoon daawul def dara moom maire de Dakar te woowul sam pap PS noonu Ousmane Tanor Dieng amul kenn koo xam ne rek yaa ngi ci réew mi rek te defoo li nga war a wax gouvernement bi nag nan leen bàyyi rek ñu liggéey nan leen bàyyi ñu liggéey Macky Sall xam naa am naa yéene bu ne ci senegal nañ ko bàyyi mu liggéey nag suñu borom moo ko fi teg su fi waree jóge jóge su fi jóge du fi jóge nag kenn du fal kenn yàllaay fal te mom la fi yalla tek nonu and ci ndogalu suñu borom te gungé ko te ñaanal yalla la lafal ko ciat man loolu lay wax. Biram ja ñu lay jaajeufal di contane ci dalal bi ñu dalal euh, bëgg nga ba tagato mbokk internet bi sa soppé yi ñi lay sétane ak ñi lay bégee. wa ma ngi nuyu d'abord sama sœur Sophie Ndiaye ma nga ci Amérique ñu bokk ndey ak bay mom tay suma ma fitu organiser hommage du Ndiaye Rose boobu mom la nak moma dolel mok moo jëkkëram Souleymane di gërëm tamit sama yaay. Kinelam, nak tay tey doo lay jën ndox su sama yaay la kinelam momit yalla nako fi yalla bayyi waan di nak sama fami papa yep ku dunjaaros jur rek mu jume si taw bi muy ciuna rek ma ngi nuyu ñëpp parce que mënu ma lim parce que may bañ mais bo ne taw dunjaaros rek lim nga ñëpp kon ma ngi gërëm ñëpp di sama jigen na fi wad di gërëm ah ki nga xamni moy Lalla Aïssa di gërëm Binta sar vraiment di gërëm nday Awa jeng sama jigen bobu ak kep yang xam yaangi jappale birum biram ma maa ngi nuyu ñëpp rawati na nak sunu maire muy maire asolem muy alaji pap sek daf ma jël def ma chargé de communication la mairie des asolem lu mu xewle ni birum njaay moy ñëw tok birum njaay moy wax may ñaan yalla bay ko fi yag ko fi loolu ci ci mandat ma ngi gërem ñep nak mais nak kenn du sama jabar ju bax ji muy aw buur kërëm koku la tuddé aram jeen yaayu parti bi suma joyul du rose war a aw ma dara lu ma metti rek mu naas lay la mu baax moom 22 ans de mariage sa bët mës ta xokk la may defal kenn du moom su ma nit ñi bëggee daal nan ma bàyyeeg sama jabar ju baax jooju muy mu naas lay du ma jaay dëgg la may wax te def ma bëgg te day def ba mu baax moom Mbaye Sakho mu baax moom ak Ami Faye mu naas na moom Mbaye Sakho Ami fay xanaa neex. <laughs> <laughs> nee leen ba ba duñ taay di leen jaajëfal suñu bokk internet bi ndax nee naa leen doolee jën ndox la tubaar fakkaat la yéen yéen lañ fi nekkal ngeen nekkal ñu fi yàkkamti ngeen info mi dugal dara ba ngeen toog di ko seetaan bu duggut sa ngeen ñuy woor yéen la ñuy xaar yéen la ñuy xaar kon nee naa leen ñun ñoo ko yëngal ba mu neex ba tax na nee naa leen nag ku lim juum kenn munta matal lépp waaye nag euh, dañ ne euh, faa lu mun ta ñàkk faa mu am tey jii nag sama yaay booy sama xaritu xool duma ko fàtte sama yaay booy nee naa la lépp yow la da la ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram suñu papa Doudou Ndiaye Coumba Rose aussi yàlla na suuf sedd ci kawam euh, dee di seen noflaay ñi nga xamante ne dañoo génn àdduna suñu papa ak ñëpp yàlla na dee di seen noflaay ñi fi nekk yàlla yàlla guddal suñu fan yàlla musal ñu si cat ak làmmiñ setal xol yi rafetal xol yi nag yi te xam ne àdduna amul solo fii loo gis day jeex peace and love ak réew info réew mi info star yeneen facette yeneen daanaan ci yeneen i feem